toll ci jamono yi campagne électorale bi jamono ji politiciens yi ñu bari di dem di seeti askan wi ngir amal seeni mitin ci mitin yooyee góor jigéen mag ndaw te jigéen ñi gën cee fes lool ñenn ñi di boot seeni doom di dem mu mel ne lu munta ñàkk sëriñ bi di xamle ne moom mi ngi koy ñaawlu trop ndax lenn sax dafa mel ne ci ñàkk kilifa la non jigéen ñi def yooyu duñ duñ tàggoo jigéen ñi def loolu duñ tàggoo man du ma jël sama doom nga boot ko di dem ak moom mitin du ma ko def. boot sa doom di ko yóbbu ca mitin ba wala ngay dem ca tàggoo say borom kër am na ñoo xam ne ñu ngi war a togg reer wala wala war a togg añ yàq sab liggéey dem ci mitin boo xam ni mën nga fa damm wala nga def lu ne maa ngi dénk daal mbokk jigéen ñi ñu bàyyi war xel ci bu baax a baax gis-gisam boobu wuteeg gis-gis bi nga xam si ne ñenn ñi moom lañ am ki di xam leen nag moom réew mi moo metti ci jigéen ñi kenn amut ci loo jàpp moo tax bu buñu leen liggéey lu mel noonu dañ cay daw waaw loolu boo gisee ñi koy def man ma leen yedduma leen parce que loo gis rek njiit la maanaam njiit mooy mooy mooy mooy nami yore réew rek day feeñ ci ñam yilif parce que fekkee da nga jiite ay nit ñu sonn euh, lu ñu lekk tëleen amuñu lu ñu naan euh, boo demee fii ci sancaan yi dañuy def lu gën a métti loolu dañuy xëy dugg ci euh, sën yi di for ay feeraay di ko jaay dem ci xew yi di far ay ay ay ay ay xotti boisson di ko dajal def feeraay di ko jaay kooku bu gisee ko ko jox 1000 francs ak tiset day dem nekkul dafa ñàkk ngor wala dara mais dafa amut pexe jigéen ñi ngay gis ñi ñuy jox ay déchet rek 1000 francs lekk ñu naanuñu fuñ ci jox baal nga jóg moo leen dugal ci système bu bon bi sëriñ bi di xam ne na moom ki nekk ci réew mi moo war a dem abal ñu ndax réew mi ñi fi nekk ñëpp a sonn problème bi mooy réew mi dëgër rek li tax ngay gis nii nit ñi di ko def nii réew mi moo demul fenn ci ñi ko yor ci boppam ñoo ñu war a abal réew mi moo doxul euh, ñi nga xam ne ni euh, mun nañu sensibiliser ñi leen ñi ñi leen ñi leen jige te xamuñu ñuy wax ak ñoom pour que réew mi ñu fexe ba teg ko ci loxo yu sell koo xam ne nii yërëm na askan wi euh, am xam-xam mën a liggéey. ak lu mën di xew ñuy ñax jigéen ñi pour ñu gën a xam fan la ñu teg seen tànk.